sopp nañu bala ngaa takk jigéen nga gis kanam nga ak téeñ ya te bañ doon lay sàcc di ko xool benn li la yëg moom jigéen ja wala kilifa bi yëg la yow nii xool gi nga koy xool bëgg a ceeb ba xam danga ko takk wala doo ko takk moo tax taa ñu sàcc di ko xool rek noonu te it nag moom mi bëgg a takk soxna da ko wóor ne kat kanam nga ak téng yi rek la sañ a xool suñu tax xool leneen ca kookee muy bëgg a takk te it du sañ a wéet ak moom ñoom ñaar dong ndax lislaam ci addis ba day araamal góor ak jigéen yoo xam ne si araamul seen diggante nga xam ne jegewuñ ci askan mbaa goromaale mbaa nàmpaale ba si araam seen diggante góor jigéen yu mel noonu day araam ci ñoom ñu yëg ñoom ñaar rek ndax na addis ba waxee seytaane moo leen di ñetteel bu bëggee xam nag lu bokkut ak kanam nga ak teewlu ya ca kam bëgg a takk mën naa seet jigéen joo xam ne bayloo na xam-xamam ak maanduteem mu wax ko ne ko xoolal ma jigéen sàngam dama ko bëgg a takk xool ma nag la des ci yaram wa ba xam nu mu demee xam nga ci seen sikkam déet ba mu sax ku xool kanam lu jigéen ak teewlu ya ndax wax ji gën a wóor ci yoonu Maalik mooy jigéen kanamam ak ay tënkam du awra kon jigéen joo xam ne jàmbur la ci yow sañ ngaa xool kanamam ak ay tënkam bu fekkee ne jubluwoo ci ak bànneexu rëgaleeti itam fitna jigéen ji it mën naa bàyyi kanamam bañ koo muur ak ay tënkam ndegam yaakaarul ne genn góor dana am fitna ci gis gam koy gis jigéen kon bu toogee fi ay jaambur wala muy génn wala foo xam ne jaambur bu góor mën na ko faa fekk dafa war a sàmm sàng yaramam yépp ba mu des kanam gaag teng ya bu dee jullit ba tey noonu la war naa sàng yaramam yépp ba mu des kanam gi ak ñaari teng yi war naa góorgóorlu nag ci bu dee génn wala sax ci kër gi bu ko ak jàmbur mënee gis muy dañu bàyyi ak dënnam muy feeñ wala baatam rawante na mu def takkaayu mbuus lu rafet bëgg bu feeñ rek tax muy bàyyi ak dënnam di feeñ ci njëkk lislaam jigéen ña dañ ko daan def moo tax nag bu lislaam dikkee yooyu yëpp mu koy aaye feeñal dara ci yaramam wala ñu nga dara ci xeet lu takkaayoo ci biir di ko feeñal ku bokkut ak kamu seen mbaam li ko yëngal bëgg ñu yëg ko loolu lépp lu araam la arawante la nag mu ne day siyaare ji maanaam daa jëm ci loo xam ne tuyaaba la ca wuti loolu moom war naa góorgóorlu bu baax a baax ba na muy solo lépp dëppanteeg lislaam dara bañ caa juyoonteeg la lislaam dëgg ni ñu bëggee nag góor gi balaa takk jenn jigéen gis kanam nga ak téng ya ba tey jigéen it bu ñu sañoon bala ñu ko may jëkkër bàyyi ko mu gis kañu ko bëgg a may daan wax sax ne am na ci kilifa yu ñu sañ a forcé jekki-jekki may ka ñu yilif jëkkër te duñu diisoog moom waaye daal lañ gën a taamu mooy diisu ko ba noppi itam fekk ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoo bëgg a séq sëy bi kenn ku ci ne gis moroomam ba àggal ki nga xam ne sañ nga koo forcé boo diisoog moom mu bëgg a bañ seetal rek boo mënee wax ak moom ba mu nangu ci tey bakkanam baax na soo ci gisee nag ak jafe nga bàyyi rek ndax sëy dafa yàgg te ak ñàkk bëgg bu ca feeñee rek mën na yooyu di feeñ ca ànd ba ñuy ànd doonte tàggoowuñu sopp nañu moom mi nga xam ne mooy dagaan moo xam moom ci boppam moo bëgg soxna wala dañ koo yebal sopp nañu xutba su ko mënee xutba bu mu sant ci yàlla julli ci yonante bi tudd ci laay ji indi digle ragal yàlla ni ki yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan teg ca nag wax ne jigéen sàngam day moo ma tax a jot bëggal ko saa bopp mbaa bëggal ko diw ñu sopp it ka nga xam ne mooy kilifa ga mu xutba moom it tontu ko sant yàlla julli ci yonante bi indi laaya ji mel noonu wan ko ne ko bëgg naa ci li ma tax a jóg ndegam gisu ca benn gàllankoor wax ko ne ko loolu xolam sedd na ca te yàlla na ko yàlla àggale bu fekkee dal lii nee fa saasa dañoo bàyyi ba tase ca mbooloo ma ci beneen bis mbaa ci yenn waxtu daañu sopp kon ñu yeesal xutba yi ñoom ñaar kay maye ak kay dagaan kay dagaan moo njëkkee dellu xutbaati ñaan soxna kay maye itam tontu ko ci xutba moom it may ko soxna sax waaye nag xutba yeeg gura géeg tàngal jeeg yooyu yëpp daal moom xutba yi dañ koy sopp rek te tàngal jeeg gura yi yëpp mën nañoo ñàkk la mënta ñàkk daal mooy ki bëgg ku ko may soxna wax ne bii laa bëgg ku ma ko may mbaa bii laa koy bëggal ka koy may soxna it tontu ko xamal ko ne ko mën naa la koo may mbaa boog may naa la ko ci kenn gu toll nangam ka doon dagaan tontu fu saasa ne nangu naa li nga ma may kii ñaan ñaan kii may may ko ñu leeral ay sëy ja boole ca te kañu may mu daal tontu fu saasa ne nangu naa li mu may mbaa ka ko fa toogal wax ne nangal naa ko li mu ko may loolu rek moo mënta ñàkk ca takkuk sëy ba sopp nañu nag ñi feeñal sëy ba maanaam lëggul sax mooy am seere bu maandu dafa jafe te lu àddina gën di dox ñu maandu gën di jafe moo tax ñu sopp bu ñu mayee mbooloom bari tase fa seere ko ñaan ca te it nag bu ñu ko mënee def bisu àddina boo xam ne tollu wut ak bis yi fat ca weer la def ko ci gannaaw takkusaan nga te lañ ko gën a taamoo ba dee nag ci yoonu al imam malik mënees naa takk ab sëy te kenn du tudd alali sëy yenn seere bu fa teew waaye nag gannaaw ba balaa jëkkër ja joteeg soxna sa nañu wax alali sëy ja nañu toll ba noppi tam nag sàkk ay seere yu seere ne diw nii may nañ ko diw nga xam ne dañu maye kilifa ga rek moo fa teewoon ak kay ñaan si waaye gannaaw ba wax nañ alal sëy ji nañu toll sàkk ay seere itam ñu ko seere njëkk jëkkër jër joteeg kañ ko may waaye bu fekkee ne kilifa gi maye ak kam ñooy soxna rek ñoom rek ñoo bokk teew kenn seeruwu ko tudd ñu itam alal yi sëy gannaaw ba jëkkër ji yëg ne moom kat may nañ ko soxna mbaa sax jëkkër ji moom wax kilifa ga xam ne moom la may mu daal dem jotee ak soxna sa moomu gis nga ne kon amuñu seere wax ñu amali sëy dañu jàpp ne kon loolu njaaloo la daal di jëtam góor gaal jigéen ja jëtamuk njaaloo li ñu wax nag alali sëy te mooy can ci lislaam ba ñu sañoon dañ ko woyofal rek ba ñu bare bari ci góor ñi mën a takk soxna te it ñëwal alal sëy ji mën a tax sëy ba gën a barkeel da sax bu dee ci islaam moom kenn ba lu mu bari bari buñ ca mën a wax dara ndax lislaam sakkanul alal sëy ak yemukaay bu dee ci yoon maal moom moom dama wax ne lu ñuy ñëw mu àll séeja na toll nangam waaye nag bu wax ne bu ëpp nangam fu mu jubee rek moom ci bari baax na la gën a néew nag nga xam ne mënu koo ñàkk nag bu dee ci yoonu Malik mooy bu dee ci xaalis ñetti dërëm yoon bu dee ci wurus kaaru dinaar la mu koy cane bu dee du xaalis du wurus koyit buñ ko dee xayma maanaam buñ koy estimer na mat ñetti dërëm yooyu mbaa boog mat kaaru dinaar fii nag moom xaalisu CFA la ñu ëpp jëfandikoo boo bëggee xam nag xaalisu CFA lan moo cay gën jaa néewi can maanaam lan moo ca tolloog ñetti dërëmi yoon da ngay seet ne ñetti dërëmi yoon moom ni mu war a toll ci ay ngaraam ci xaalis bu sell bi nga xam ne moom la tëgg bay xelli di ci liggéey ay takkaay war na caa tolloog huit virgule neuf cent vingt cinq maanaam juróom ñetti ngaraam yi teg na bay bëgg a mat juróom-ñeenti ngaraam waaye nag matut juróom-ñeenti ngaraam ci xaalis bu sell boobu nga xam ne moom la tëgg bi di xelli di ci liggéey jaaro yeeg xeeti takkaay yi loolu nag boo laajee tëgg boobu jamono yi benn ngaraam ci xaalis boobu fu mu toll ci CFA bu la ko waxee rek nga daal di mën a seet ci ni nga déggee li mu ngaraam yi kon gën jaa néew can nu mu toll ci yooyu jamono danga ko daal di mën a xam ca bis booba bi ñu ko mujjee seet nag ca nañ ko seete woon dafa toll woon ci trois mille quatre cent mboolem seet ñu ko seet yépp matagul benn yoon cinq mille waaye nag ci yoonu taalibe yi moom dañu topp rek ndigal li muy ñetti junni ak ñaari téeméer ndax dañu ne sëñ fadlu yàlla na ko yàlla ba li nga nag leer daal di woon ci ay jamonoom ñetti junni bi Cheikh Abdoul Ahad ñëwee delloo murid yi ca la Sëñ Tuubaa digle woon muy ñaari téeméer ñu far nag boole yaari ndigal yi muy lenn daal def ñetti junni ak ñaari téeméer muy ndigal li nga xam ne taalibe bi bu dee maye soxna mën naa laaj ko ko lim boobu ndax toppe ko ndigal li mu ñetti junni ak ñaari téeméer ñu teg ko ci loxol jigéen bi nga xam ne moom la ñuy maye te moom itam mu lañ caa def dara mu aay rawante na lu araam na fexe ba jëmale ko ci lu am njëriñ ndax li ñuy ndigalum sëriñ bi bu mu xasee fas ab say diggante góor ak jigéen ci ni ko yoon waxe kenn ku ne ci ñoom ñaar mën naa gis lépp ka ca des ku ci ne loo bëgg a xool ci sa borom rek ba ci awra ja muy sawukaay bi bunt fii bi ku ci ne mën na koo gis ci sa morom rawante na leneen la ca des ba tey kenn ku ne luñ bëgg a sàkku ci bànneex ci morom ma rek ci laalante ci yaram ak jote bi yàlla di seen diggante yépp rek mën nañ ko ba mu des nag jote ca buntu suuf ba suñu jote ci buntu suuf ba maanaam def sawukaay ba ci buntu suuf ba su ko góor gi defee ci kaw wala mel ne góor ga moom yëgu ci dara waaye moom jigéen ji moo ko nax rekk ba sawukaay ba dem ci buntu suuf ba bañ a dem ci buntu sawukaay ba ñoom ñaar daal koo ci xam ne def nga lu mel noonu ci tey buñ ko seetee ba mu sax ci yoon àttekat bi war na koo yar lu tax nag ñu jàppe ko njaaloo ba di ko gétam gétamum njaaloo dañ ko jàppe itam jëfi waa loot dañ ko yar rek ci kaw noo xam ne àttekat baa koy seet ba xam na ca yàlla mu def ko ba tey nag mën na am ngànt lu tax ñu aaye leen ñu gete ni ki bu jigéen ji gisee baax deret reegal wala deret wasin wala ñu toll ci bëcc gub koor wala kenn ci ñoom ñaar di lii atikaaf wala kenn ci ñoom ñaar armal aj wala xum rek te yëngu koo gut lu mel noonu di sañ a gete su gàllankoor boobu amut wala amoon na waaye jeex na kon ñu bëgg a getee ñoom ñaar ak kenn ku ne mën bëgg a bànneexoo ci yaramu moroom ma rek mën na ko li ñuy wax jamaale dañ koy araamal ci lislaam ci sartu kay wax ci jigéen ja wax naa wax ba sori ci wax ja nga xam ne benn rek ñu amul déggoo mbaa ñàkk déggoo waaye wax ja moom sori na yooyu jamono dana araam kenn ñëw di ci wax moomam ne daa bëgg a takk te ko addis bu andee sax da caa sësale waxaale ci wàllu njaay bu kenn dee waxaale dara ba sori ci waxaale yoo nga xam ne benn lu juboo rek mbaa ñàkk juboo dana araam keneen ñëw dugg ci di ci wax nga sax bu kenn di kii tàmbale laaj li ñu jar tàmbale waxaale keneen seen naa ñëw def na moom waaye nag bu genn xasee sori ci waxaale woo moom da nga araam keneen dugg ca te demul ba bàyyi bu jigéen nekkee fenn am ñu fay dem du ko bëgg rek yow it mën ngaa dem ba xam yaa cay jot wala ñoo cay jot bu ca kenn di wax waaye wax ja soriwut it ba tey mën ngaa wax ne moom waaye nag bu wax ja soree ba nga xamee ne moom àgg nañ ci déggoo mbaa ñàkk déggoo rek moo sës day araam kenn ñëw di jamaale di ca wax ne moom it daa bëgg lu ne nag ka cay wax dafa nekk kàccoor di jëfe loo xam ne lislaam da koy bañ di ko fësal te kii nga xam ne moo ñëw di jamaale moom nag doon waaju baax yoo xam ne xamuñu ci moom dara lu wóoteeg lislaam kon bu ñu aaye moom mu baax nii mu dem jamaaleeg kàccoor boobu ca nekkoon ndax ñu bàyyi kàccoor ba te may ko ko moom nii fekk lépp dama bëgg rek jigéen ji jëkkër ju baax ju mel na lislaam bëgg te dañu am jëkkër ju kàccoor joo xam ne jullit la waaye dafa mel melo yoo xam ne lislaam bëgg ko te du ko fësal boole ca su ñu nee jamaale bi araamoon na ndax mënul ne doo nga weesu nga xam ne te jëkkoon di wax ba sori ca wax ja ku baax la ki ñëw di jamaaleen moom mën naa baaxe ne moom mën naa doon kàccoor mën naa amit te jëkkoon di wax ba sori ca wax ja di kàccoor te ki ñëw di jamaaleen moom it di kàccoor ne moom yooyu yëpp jamaale ga lu araam la wartoo naam su amee nag ba noppi kooku ñëwoon di jamaale fexe ba ñoo ko soxna sa dañuy seet bu fekkee mooy kese la nga xam ne jotuta ñéet ak kañ ko may dañuy tas sëy ba delloo ko ka ci njëkkoon di wax waaye nag dañ ko mayee moom moomu bu mu ko suyee ak moom nag ñu far bàyyi rek sëy ba wéy nga xam ne kon jamaale fenn képp lay dagane mooy kay wax ci jigéen ja di ab kàccoor mën na lislaam bëgg te kay jamaale moom nag di waaju baax xamuñ ci moom dara lislaam bañ foofu rek la ñu nangoo jamaale gi fu bokk toog foofu nag te ñëw di jamaale bu fexee ba ñëw ko itam su fekkee mooy rek la jotewut ak dañ ko may dara dañuy tas sëy ba delloo ko te ci njëkkoon di wax bu xasee wéet ak moom nag ñu far ko bàyyi noonu rek loolu ñu wax nag ci tas sëyu ku ñaareel ka delloo ku jëkk ka dafa am yeneen ñaari masala yoo xam ne siiw nañ ci téere yi fiq yi tam deme noonu nga xam ne dañu tas sëyu ku ñaareel ka delloo ko ku jëkk ka masala mu njëkk mi mooy jigéen joo xam ne jëkkëram daa jekki-jekki dem xamuñu fu mu nekk ñu ñëw ci àttekat bi mu gëstu gëstu mënuñoo xam ci moom dara dara dara
bu àttekat bi xamee ne jëkkër ja réer bàyyi na fi dund ak dëkkuwaay ak yépp te soxna si ci boppam ragalu dox tànk caaxaan mën naa muñ kon mu daal di koy digal mu toog ñeenti at néggandiku jëkkëram jooju ba xam yéenti at ya mat mu daal di wax jigéen ji ne ko kon iddawul iddawul faatu ba idda ji jeexee mu ne ko kon nag mën ngaa wut jëkkër naka mu wut jëkkër nag gannaaw ba jëkkëram ji njëkk ja ñibb si baa ñu dégg ne ma nga ca béréb sàngam di dund mbaa sax ñu dégg ne dat sàngam la faatu faatu na waaye dat sàngam ci la faatu lu mel noonu lay tax ñu bàyyee ko jëkkëri ñaareel ji bañ koo delloo ci jëkkër ju jëkk ja ñett sart yi lay doon ba ci jëkk mooy biñ ko ko mayee yemul ca may ga jàll na jota wéet ak moom ñaareel ba mooy fekk booba it xamutoon dara ci jëkkëram ju jëkk ja waaye su fekkee ne wéet naa moom waaye moo ko tey fekk na boobu mu xam ne jëkkëram ju njëkk ja ñibbisi na wala ma nga ci béréb sàngam di dund wala sax faatu na waaye bi mu faatoo léegi idday jigéen ji waragu fee jeex ku topp dat ba nga xam ne ca la jëkkër jëkk ja faatoo yooyu yëpp duñ ko ko bàyyee moom kay na fekk rek bi muy wéet ak soxna si xamutoon dara ci jëkkër ju jëkk ja te ku seetit wax fiñ ko koy may fekk jëkkëram njëkk ja faatu ba idda ja war a jeex ñetteel bi nag mooy fekk jëkkëram ju njëkk ja itam dañ ko ko mayoon rek waaye jotewut ak moom dara bu ci ñett sart yi dajee daal jëkkëri ñaareel ji moo koy féetewoo waaye bu du loolu rek ñu delloo ko ci jëkkër ju njëkk ja te dee dund moom jëkkër ju njëkk ja daal di koy féetewoo bu fekkee faatu na itam ñu delloo jigéen ji ci iddaam mu iddawu ko doon na ko bu idda ji jeexee nag ku ko bëgg a takkaat doo koo takkaat nga xam ne kon ñu xam dat ba jëkkër ju njëkk ja faatoo lu ci am solo lay doon ndax buñ xamee ne dat ba jëkkër jëkk ja faatoo teg nañ ca ñeenti weer ak fukki fan ba noppi ku ñaareel ki moom door a takk kon jëkkër njëkk ja faatu na ba lu toll ne idday faatu tegu ci jëkkëri ñaareel ji door a takk loolu kon kenn du delloo jigéen ji ci idday jëkkër ju jëkk ja waaye bu ñu seetoon dat ba jëkkër njëkk ja faatoo laat nañ cey teg lu tolloog ñeenti weer a fukki fan rek la ko jëkkër yi ñaareel ji takk kon mu ngi takk ci jamono jooju nga xam ne idday jëkkër njëkk ja waragut a mat kon dañuy delloo jigéen ji ci idday jëkkër ju jëkk ja ba noppi nag mu doon it jëkkër ju jëkk ja masala mi ci des nag mooy jigéen ji wax yaari kilifaam mbaa lu ëpp yaari kilifaam ne leen wétal leen ma jëkkër nga xam nga kilifa yi mën nañoo limu ndax bu ñu dee ay mbokk yu mbokkal ndey ak bàyyi mën nañoo bari bu ñu dee ay dooy mbokk mën nañoo bari bu ñu dee ay baay yu ndaw wala ay doom yu baay yu ndaw ba ci sax ay doom yu góor bu dee ñooy kilifa yi mën nañoo bari bu ci waxee ñaar nag ci misaal ne leen wutal leen ma jëkkër ku ci nekk mu wax la boppam ñoom ñaar ñooñu nag yëgoowuñu kenn ku ci ne wutal ko jëkkër may ko ko kon bu ñu xamee ne bokkuñu jenn jamono ju ñu mayee ñaari jëkkër yi am na ku jiitu ak ku mujj ka jiitu la rek ka njëkk a may rek moo moom soxna si lu may nag ki mujj a may dem na ba wéet ak soxna si te xamatoon ne kat may nañ ko kenn su boobaa dañ koy bàyyee jëkkër yi ñaareel ji wacc ku jëkk ka ne ko yow ñàkk nga waaye nag bu fekkee ne ki mujj a may jotuta wéet ak jigéen ji mbaa wéet naag moom waaye moo ko tey xamoon na ne moom bi ñu ko koy mayit fekk nañu may ko keneen ba noppi du tey ñu nangoo ko ci moom ba tey delloo ku jëkk ka bu ñu seetee nag gis ne wax fi ñu ko mayee ñaari jëkkër yàlla def waxtu ya tombe nga xam ne ci benn bis bi la ci wenn waxtu wala kooku moom ñoom ñaar ñëpp lañuy dindi dañuy dindi sëy yëpp duñ ko ca mën a moomale kenn jigéen bu tolloo ci di iddawu iddawu mooy jëkkëram fase ko mbaa jëkkëram faatu diir ba war a toog nag dooda wutiwaat yeneen jëkkër moo tudd idda bu ci jigéen tolloo nag dana araam góor di ko wax naa ko dama laa bëgg a takk wax ko ca digg ba xappati gaaral moom dana ko wax ci kanam ne ayit waaye nag xappat ci digg ba wax jigéen ja iddawu ne ko dama laa bëgg a takk mbaa dem ci kilifaam nga ko war a maye di ko wax loolu te idda ji jeexagut lu araam la ba tey sax ba jigéen ja tollu woon ci laablu laablu mooy ñu joteeg moom jote goo xam ne gu aay la ñu war ko caa laablu ba xam ëmb na ci wala ëmbewu ca xam ne yooyu jamono jëkkëram sax bu amee jëkkër it du joteeg moom ba laablu ko jeex kon bu fekkee amutoon jëkkër toll noonu ci laablu dana araam genn góor ñëw di ko wax ne ko dama laa bëgg soxna xappati ci digg ba daa wax ni jigéen bu tolloo ci di iddawu ku ko ca takk ba noppi jote caag moom dalay araam faaw faaw ku ko ca takk itam jotewul ak moom sax ci biir idda ja waaye gannaaw ba idda ji jeexee nga joteeg moom tey ci takk ga nga ko takkoon ca biir idda ji rek ca nga sukkandiku ba jotee ak moom kooku it day araam faawu faawu moom daal bu xasee takk ci biir idda moom mu jotee ak moom ci biir idda ja ak bàyyi ba idda ji jeex mu door a jotee ak moom waaye lépp mu nga sukkandiku ca takk ba mu takkoon ci biir idda ja ñooyamoo dee ci yoonu Malik moom jigéen jooju da koy araam faawu faawu lay baax daal mooy. mu takk ko ci biir idda ji bañ a joteeg moom dara gannaaw ba idda ji jeexee ñu xam ne takk bu njëkk bi baaxutoon ñu may ko ko nag may gu yees gu baax ba ñu ne jigéen bu tolloo ci di iddawu doo sañ a xapp ci wax ca digg ba ne ko dama laa bëgg bëgg laa takk mu ne itam day araam nga digganteeg moom wax ak moom ba juboo ci nga xam ne bu idda ji jeexee nga takk ko wala sax ngay dem ci kilifaam nga ko yilif digganteeg moom ngeen juboo ci bu idda ji jeexee nga takk ko alxuraan day wax naa walakin laa tuwaaxiduhunna sirran jigéen daal bu tolloo ci iddawu day araam ngay digganteeg moom ngeen di juboo ci bu idda ji jeexee nga takk ko wala ngay dem ci kilifaam di wax ak moom ba juboo ci bu idda ji jeexee yow la koy may li ñu maye daal mooy bu jigéen tolloo ci iddawu te nga bëgg mu xam ne yow mii kat bëgg nga koo takk nga bañ a xëppati wax ci digg ba xanaa rek gaaral nekki nga ne ko yow de xam naa ne ku am ku mel ne yow rek gañe wala yow de xam naa ne boo génnee ci sa tolluwaay bii ku jëkk ci yow rek gaña na waxi ni mel noonu daal doy na